étoile jamono ñu ngi leen di nuyu di leen di ziar di leen di ñaanal jàmm di leen wax ni ngeen wéy di abonné saa su nekk ñu leen wax ni chaîne bi chaîne d'actualité la tey nag ñu ngi fi toog ak kilifa gu mag saa su nekk comme ni ma koy présenté di sama oustaz euh, di kilifa ci réew mi ñu gën ko xam ci yaa oustaz Ousseynou Ndour yaa oustaz ñoo ngi lay nuyu di la ziar yaa oustaz nag tey suñu waxtaan tey euh, dafa jëm ci situation bu Joal. Mm-hmm. tey situation bu Joal gis nga Aïssatou Sophie Gladima yàlla jiital ko ci dëkk bi. Hmm. mu def fi plus de ñaari at. ak lu ak lu teg tey boo ñu doon wax ci diggante ñaari atu Sophie Gladima yi euh, lan nga ci jàngat lan nga lan la war a yokk lan mooy faay bi ak lan nga koy conseillé tey. Euh, jëli kontaan naa si laaj bi ginnaaw bi mu nuyoo ñëpp jiital ko si. Mm-hmm. jiitaluma ko nag pour neexal ko. Mm-hmm. mais yàllaa ko jiital. Mm-hmm. Euh, dafa am buur boo xam ne dañ ko ne kat kasurat shaakuka wa qallat shaakaruka imma addalta wa imma uzilta daf ne buur bi yow de liñ lay jàmbat bari na te ñi lay sant néew lañ maandul wala nga wàcc so fi ay sëtu galaadima yaayam laa dajeel medin mu ne ma ñaanalal sama doom moo ma indi màkk waaye nag moom su diine eesa la nekk ma kontaan lool mu ne ma dénk naa la ko it te boobu xamaguma sofi mm-hmm. ma ñaanal ko ah xaw ma gëm na ko xaw ma gëmu ko mm-hmm. waaye bi mu ñëwee lañ ko def ministre mm-hmm. daan naa ànd ak moom si jamono Ablaye Wade ba si kër Pape sàmm Mbuub ne leen delloo ko mini delloo leen ko ministère xam nga loolu mosoo koo yëg. déedéet kon su fi Aïssatou Galadima ragaluma. Mhm. bi may jógee màkk ba léegi gisante kon yaakaaruma ko. Mhm. waaye nag yaakaar naa ko si dëkk bi. Mhm. jigéen la it ju baax. jigéen la ju lewet. jigéen la ju modeste. waaye nit ku nekk seetal sa staff. firawna baaxoon hmm. firawna mii firawna ak ka baaxoon bëgg yaayam xam nga nu ko dugal baxaru xalsu ba mu toro hmm. estaf loolu de maa ngi ko doon xam may jiili yow ñi ngay àndal buñ baaxul doo réussir dëgg la bu ñu baaxee yi taragal la hmm. doo réussir gis nga buur ki koy wax dëgg la war a wóor ba seet man maay chargé de mission réalisée waaw dëkk bi nag bi ma ko jëlee si jëlin bi mu ko jël dama koy wax ne kenn joxu la ko yàlla la ko jox. dëgg la. ma ne ko suufi. Hmm. jubal ak ñëpp. Hmm. baalal ñëpp. Hmm. dimbaleel ñëpp. def na ko it. bi muy nekk ministre. day joxe ba ma ko ne wàññeeku parce que boo ko nekkatul dina métti. dëgg la suufi faj nañu bari. suufi gladima. faj nañu bari ay fibron. ay cancer yëpp maako ko yëg maa ko xam. man duma tagg suuf bi te tagg euh, euh, dëgg rek laay wax. loolu de maa ngi ko door a yëg man. wallaahi bari nañu opéré. Mhm. bari ñu faju si dëkk bi. Sophie leen faj. dëgg la. trente six personnes. yu teg mhm. yóbbu na leen màkk. moom Sophie. moom Sophie. te noonu la koy defee si catholique yi. Mhm. jumaa ji. ñu ngi koy dale moo ko def. Kër Labbe ñu ngi koy dale moo ko def. kordia yi nga fi gis. Mhm. si jamonoy pool yi. Sophie mhm. Sophie Galaadima moo ko fi andi. xamoon nga loolu. déedéet mais nit ñi nañ koy wax. man na loolu ma jaaxal sa wàll. tey moom ma xaw ma ci àddina bokk. Euh, mais buñ la noon defarul tali bi. Mhm. si ayam la dëgg la. joobaay euh, li fi am nii. ñoom defaguñ benn projet projet Macky Sall la. waaye joobaay ko tombé. dëgg la kon Sophie moo tombé tali bi. dëgg la. chauffes moo tombé solaire yi. chauffes mhm. moo moo bi. xoolal ni mel. dëgg la mu ngi liggéey. Mhm. waaye si biir liggéey bi dama la ne na jubóog ñëpp. Mhm. lu ñuy xaccoo na ko bàyyi ak njaboot gi. tey baale di jéggale. ñi nga xam ne ñoo wër suuf bu ko si kenn nettali nag kenn daf diw daf laa bañ wax na ma ko nag. nee na ma oustaz. ñii ngi nii toog bu ma kenn nettali ku ma xas. bu ma kenn nettali ku ma saaga. moom dinay wax loolu. moom moo ko wax ma dégg ko. ni boo ko kenn nettali jëw bu ñaaw. jëw boo xam ne dañ ko koo wax tamu ñaaw bu ko ko kenn nettali. waaye dama koy ñaan. comme man maa nekk maire maa nekk conseil mhm. waaye suuf yi dëgg laa ko war a wax dëgg la ba pare dama koo bëgg mhm. bëgg ko moo tax muy xuloo ak moom si wax dëgg mhm. damaa bëgg ku nekk si commune Joal Fadiouth lu mu bëgg na ko ko suuf yi bàyyee ku fi munti nekk ku fi mun nekk ñi fi nekk itam te ruq bu nekk bugg am maire jiiri da yàq dëkk bi waaw Joal moom saa bu nekk sa waa waaw léegi da ngay dégg futur maire waaw ku da yaay toog. moo ma jaaxal. futur maire amul maire boo am. premier adjoint deuxième adjoint yow loo am. Hmm. yoo nekk goo maire. soo amee conteneur booy andi si dëkk bi noo war a def. gisee borom dëkk bi. taabil hmm. yaa may laaj mais dama lay laaj. <laughs> waaw yaa yaa may laaj. tul bu yu tamit ab waa bi hmm. ah su fi gëlaa dima man de dama amoon ay welo conteneur. ma andi woon ko pour commune su au oh, chef de quartier yi au oh, waa dëkk bi mhm. toog def discours am félicité la mhm. ne jiili moo fi andi welo yii jébbal ma ko pour ma jébbal leen ko mhm. andré Franco noonu la doon def François boobu noonu la doon def mais kenn ku nekk bu buggee jënd burwetam jënd ay rato ànd ak ñoo xam ne gëmuñu la dañu lay dóor marto bu ëllëgee boo defee élection dañ lay gagné élection yi passé ceeb yi ak bari woon si ay ruq waaw diwlin yi ak bari woon si ay ruq mhm. te ñoom ñëpp dañ leen a ak enveloppe yi ak enveloppe yi mhm. te ñoom ñëpp dañ leen a mhm. kon ruq yi nga xam ne dañ naan futur maire laa bëgg mu dëñ njiili maa ngi lay wax si tali bii ñu koy defar loo leen tudde boo leen gisee looy wax ñuy defar tali waxoo ñu yàq tali bi déedéet waaw kon bu tawee benn taw te yàlla ne may yàlla kenn du bëreeg moom. nguur ak yàlla la ak nguur ak nit. Mm-hmm. tali bi ñu defar ko inondation bi am ndox mi amul fu mu jaar. Mm-hmm. waaye nañ leen leen tàcc ñoom ñu xool fi ndox mi di kale ñu roqanti ko. mooy dëgg. Mm-hmm. mais bu fekkee ne kenn ku nekk yàkkamtiwul dul suufi ay surtout galaadima am problème. nga tawi ko. dem étoile jamono dóor ko fa. waaw jiilu du la bàyyi nga dem daf lay freiné. ñi nga xam ne dañ leen a tudd futur maire. maa ngi ñaan semaine bi ñoom ñu wone na ñoom du ñu meer dañoo bëggu dëkk bi mm-hmm. ku bëggu dëkk bi nag di liggéey dëkk bi da ngay jaar si waa dëkk bi mm-hmm. xam nga lu mel ni njoong lu mel ni mbela ñéen lu mel ni ngool na et cetera mm-hmm. ndubaa mais ñooñu ñooy ndeyu dëkk bi waaye dëkk dina am doxandéem am ñoo xam ne doxuñu dañ fee dëkk am na na makka Quraysh. Mhm. hum ahla eh, makka wa hum qabilatun sharifatun ghaniyatun mhm. te tabaa dëkk bi ñu baax lañ. dëgg la ñooñu dalal jii li fi nga nekk toolu toolu maamu jàmbur la. dëgg la fi mu nekk toolu maamu jàmbur la. Mhm. kon dëkk dina am ñu fi cosaanoo ak ñu fi cosaanoowul ñu fi na ñu gërëm ñi nga xam ne. ñu leen dalal dëgg la ñu fi nekk dëkk fi nañu yërëm kan ni dëgg la Joal Fadiouth dëkku yërmande la dëkk bu baax la xamoon nga ne Cheikh Omar ñëw na fi Cheikh Omar Foutiou Tall. waaw déedéet. maa dinaa la yóbbu ba si jàkka ja fële. jàkka Cheikh Omar dama koy dégg rek. interview yi. Mhm. Joal wone ressources yi. Mhm. maa ngi dégg benn réunion su fi Aïssatou Galadima ne day commencé sa ngaso bil mhm. def ay koko mu ñëw ba ku fi ñëwati jowaalo gi doon xëeñ démb waaw xeeñaat waaye gis nga ba ko fi defee te xale yi jubóowuñ mag ñi jubóowuñ dañuy bàyyi ba guddi ñu daaneel ko. waaw loolu la dëgg la. kon Sophie am na problème bu rëy. Hmm, problème bi mooy moom na mbaraan nit ñi jubóog ñoom. waaw surtout. fii nag. Hmm. laay gërëme. Hmm. nga xam ne du ma sàmba alaar. xam nga ca. waaw jiri dafa dem de. waaw ner ulay. Ah, sama sama sama sama yaay yu baax. maa tax di nuyu mu jël ay jigéen. lépp xaalis bu ban. bañ defe na da ngeen koo lebal. si crédit mutuel mu ne may naa leen ko. mu ni may naa leen ko. wallahi al laas. dëgg la. wallahi al laas. dëgg la. du ma wax lu waxul mukk. Étienne Dimli. waaw ak baax. bëggoon naa ñëw sax moom ci situation. mais dafa baax. Étienne Dimli. waaw. mais sama jarbaat la sama doom la. papaam li mu fi def kenn defu ko fi. mais na na dem collaborer ak Sophie Aïssatou Gladi. bala Gladi ma topp ci ginnaawam. topp si ginnaawam. bokku se estafam ku bugu yakala, la yakal da ngay xambalé ki togg deug la ki ay da nga koy mhm. bu ko kenn jay ba mu def ko mm. ah Sobel fu musa wax ne mhm. ma ngi len di nuyu mhm. waye Poli Ndom ku am boy beure ak mom na la sa jay tere ndax da lay te bobu Poli jëlagul maire bi mais dafa ak maire bi deug la kon Étienne Dimle mhm. mbokkam la mhm. deretam la doomam la bàjjanam la den na den ak bàjjanam bu mu ñëwee doole bu mu ñëwee doole mhm. dañ koy lekk te du am résultat na jubóog ki fi nekk jubóog ñi fi nekk ñu ñëw na yeble fi wax na man lu rafet dem na kër laan mais bu mu mu nekk maire waaye yow itam boo sa papa buy dund ngay wane ne bu sama baa papa boo dee fii laay def lii wala damaa nga <laughs> mais paa bi day wut. da da da da lay galgal. na ànd ak matam ku ñëpp xam foo jëm doo sori. jubóog imaam yi. Mm-hmm. jubóog ñëpp. Mm-hmm. xale yi muy àndal. kum si àndal àllarba. Mm-hmm. boo ko ko laajee dimanche. bu mu la ne tàggoo lañ. bu fekkee ne boo amee nit. léegi-léeg ñi nga àndal staf bi jaxasal ak jili ba nga bàyyi. waaw waaw waaw waaw. loolu am genre. moo bëri nit ban auto 4x4 yoré yore mhm. dinaay genn man do ngay and mhm. deug ji may wax nak sama bakkan bi bugg naa mu des si ma dem àjjal mhm. xam kan ndeykaan siise bu baax ak sama xarit ak baax ak bugu dëkk ku baax ah waaw ñun waa Joal kan ni mun na ñew te ba buñu buggé muy dem kër madame mais le maire madame le maire di amal gan di ko oo mm-hmm. mën nañ te ñun ñaar dedet mais dañu defarul dañ ko yàq dañuy yàq nit ñi nak yàqal leen tey candidat laa bañ dëgg te du dëgg mm-hmm. billahi wallahi tallahi makka laa du mm-hmm. deug dëgg bu hmm ah bo demee faaju bu nañu bañ madame sibi dedet madame sibi bi mën na leena bañ dedet dañu defarul kon dal dekk bi yàq yi ñu bari ñoo bari manam dafa am nit ñoo xamne ne nit lañu waaye moteuru kaña lañ yor. <laughs> ci may jeexale mooy. <laughs> docteur docteur Alima Gueye. Euh, kii Pape Gueye. Papis Gueye. Papis Gueye. noo gisee doxal. xam na ne sama doom la. Papis. bi muy jàng. jàngalu ma ko ni ma la jàngale mais kiis yi mu doon naan man la ko pappam doon sant may bind ma koy naan ak ay rakam. Mm-hmm. maamam sama yaasin la mujjee naan wax naa ko ko tey. Mm-hmm. Papis nag ku yarul. waaw waaw. Papis ku tey la ku baax. benn defoo daal laa gis. Mhm. na ko rectifier. muy ban futur le maire. futur maire. waaw futur boobu ma gis moom boo wax na ko dindi. Mhm. bu ñëpp xamee fi nga jëm doo yegg. dëgg la. na ko dindi ba mu set wécc. Mhm. te fexe nag dem ba maire yi. di gisee ak madame bi di waxtaan ak moom bu madame Sibi xewlee même bu ko yëgalul citoyen dëkk bi la na dem toog. te mu wóor na ma ne. ku ko si jox loxo mu jox loolu mm-hmm. jigéen nag jigéen la mm-hmm. dañoo am seeni salañ salañ mm-hmm. waaw waaye boo nekkee jigéen muy kilifa d'accordal ba pare jiiri maa ngi lay wax leen est-ce que xam nga ne commune bi ku dàq madame si bii jàng amu fi ku ko dàq jàng amu fi amu fi ci commune yée déet li gën a jafe la man lii may wax nag yàlla toog weer bu ma gis ma si bi yàlla naa toog weer bu ma lekk dërëm. Mm-hmm. te maa ngi wa maa ngi lay wax ne. Mm-hmm. billaahi bu invité woon ñëpp këram pour ñu reer. Mm-hmm. man du dem. dëgg la xam nga lu ko war a lu sax damaa bëgg saa yu ma ko waree attaqué attaqué. dëgg la xam na ma bu baax. saa yu ma ko waree taakale taakale. taakale ko uutuma si moom dara. li may ut si moom mooy mu muñ nangu ko ko wax dëgg te xam ne moo ñu jiite dëgg la. bon bu ma sañoon sama doom a koy jiite. Mhm. soo sañoon yaa koy jiite. dëgg la bu ko yàlla tegee si kanamu dëkk bi nag. Mhm. dañ ko war a muñuloo mu am patience. Mhm. jubóog nit ñi. la mu commencé woon di ko def na ko continuer. lii laa koy wax soxlawuma dara am nag. te dëkk bii ma di la yëgal ne. fi ma dem si biir xulóol. boo ko yëgee looy wax. yow jii li dama la question. moo tooñ. moo tooñ ah du dëgg. waaw loolu laay loolu ñëpp loolu la ñuy xam ne. moo tooñ. parce que yàlla moo ko sempi si nit ñëpp. Mhm. ne ko yaa jiite dëkk bi. Mhm. kon madame si bi maa ngi lay wax direct. Mhm. yow Sophie Aïssatou Galadima. ko joteel si dëkk bi yaa ko toog. dëgg la ndax kon yàlla defal defalu ko kenn. jërëjëf loolu leer na xam naa foofu la ñuy daal di tëjee mooy euh, bu kenn yàkkamti. wax ji wax ji mooy euh, ñi nga xam ne bëgg nañu mairie bi. kuy yoot du sëqat. mais yow sa dafa mel ni nag wàllum. audience yi lu la métti la. métti na ma. maanaam réunion am nga dem foofu. Mm xam nga nit ku biiram di daw. Mm mu ñëw si buntu duus bi. soo amee yërmaande da nga koy xajal. dëgg la kon ki dem di seeti maire sa maire ba. Mm. muy réunion. dëgg dëgg nag dañ laa war a recevoir wala ñu boole la Omar ba génn wax ak yow ñaari wax. beneen li madame si bi binduloowul kenn audience. staff bee koy wax naan la da ngay bind audience ñu jox ko madame yooyu bindee ki wan waa ki ñu ngi yàq loo xam ne lii. Mhm. yow maire ban mooy la ñuy bind ba ah, xa waaye maire ban la ñuy bind audience. jaaxal na ma de jaaxal na ma de. Ah? Mhm. am na ministre yoo xam ne sax doo leen bind audience. parce que woo na de moom xam naa ne yomb na ko. da doon reer si kër jàmbur yi. Mhm. ba guddi di ndekkee si kër jàmbur yi. nga dem maire ñu naan la da ngay bind audience yooyu yéen waa Joal lànk leen bu leen bind benn audience. beneen bi xam nga sareetu mbaam yi dafa mel ni dëkk bi amul maire. sareetu mbaam yi. sareetu mbaam yi si kaw tali. waaw amuñu làmp amuñu dara. waaw waaw dëkk bi mel ni amul maire. waaw waaw waaw waaw. duñ si wax. dëgg la de. foosi mbedd yi. foosi mbedd yi duñ si wax. dëgg la kër yi nga xam ne dañoo yokku mbedd yi. Mm. ñëw ba mbedd mi oto xajutu si. dëgg la ak bari si dëkk bari bari na fi de. waaw lii madame si bidu du si wax. ah kay. li tax gars yi di ko defloo assainissement. Mm-hmm. si xol bi nga koy jëkkee. Mm-hmm. boo xool yi setee mhm. soo balee dëkk bi mu set dëgg la bu tali bi jaaree yoon mm. sareetu mbaam yi di jàdd oto yi di jaar mm. accident dootul am dëgg la bu montage amee si dëkk bi jakarta yi dootuñu saaraan mhm. kon madame si biir li koy xaar dafa bari dëgg la waaye nag na am bët bu sañ bu nekk sañ mhm. am bët bu nekk mbélañeen am bët bu nekk sarom poñe sàmba jam am bët bu nekk poor waa poor yi mm. ay homme d'état fa nekk. Mm-hmm. maa ngi maa ngi koy dénk. port bi. Mm-hmm. jàmmal na leen mais na ko yokk. Mm-hmm. ñooñu tam ñu ngi jooy ni gis madame jafe na leen trop. waaw te nit ñëpp nee nañ bu ñu ñëwee maire ñu ne leen da ngeen di bind audience. waaw man noo nit ñee ko wax. man nag saa yu ma demee maire bu ma ko soxlaa damay ubbi bunt bi man. ndax man madame amul kenn ku muy àndal ku ma mun. te man kenn du ma jànn kenn du ma tuuti. waa Joal nañu bañ bindu audience mm-hmm. sa yuñ ko bëggé gis nañ ko seeti mairie buñ ko fa fekkum nañu dem buntu këram toog moo nangoo nek maire deug la dé moo duma ma bind kër yëp la duggoon rey ñoo yi ñi def mm-hmm. suñu dëkk bi lañ ci bëggal jëmale kara mm-hmm. wa nga dem légui ñu la madam day rey ñoo doo dugg wala bo duggé kenn ku nek ñangal du nono ha ah. do doy na waar ku bëgg boot nit ñi da ngay suñu mbubb si bien sûr signal kenn du ko boot yi deug la ma ngi koy gërëm ma ngi koy sante di ko dénk jub Mm-hmm. jubal mm-hmm. ragal yàlla dëgg la jotewul ak man dara mm-hmm. jotewu ma ak moom dara na ma meloon si moom démb noonu laa mel si moom tey waaye billaahi wan maaki tallaahi jamono ju ma ko ragalee wala ma nar koo ragal wala ma rus koo wax dëgg yàlla ma yàlla fa jërëjëf mu nekkoon yaa oustaz Ousseynou Ndour ñu doon ànd ak moom ci taxawaay seetlu ci Joal Fadiouth yaa oustaz dañ lay bàyyi nga tàggatoo comme niñ koy defee waaw maa ngi nuyu Joal Fadiouth yëpp di leen bëggeel gi ma leen bëgg. man damaa bëgg Joal Fadiouth. ma bëgg picc yi. damaa bëgg Joal Fadiouth. gis nga li ngay gis mooy sun pantalon kap yëpp. xale yu góor yi laa bëgg ñu ñemeem. sama oto bii. dama si teg ay wëy cosaan yi ay ñoom asan bu bëgg yooyu xam nga li tax. dama bëgg xale yu góor yi ñeme ma. waaw waaw am ay garand bu jiili. am naa ay ñaari morso. waaye boo solee pantalon ma sol pantalon sol kap nga ñeme ma. dëgg la. lii tax ma di ko def. dëgg la maa ngi gërëm ñëpp. Mm-hmm. maa ngi sant ñëpp. Mm-hmm. maa ngi jotale nuyoo sëriñ Abdoul Ahad Mbacké. Mm-hmm. di jotale Serigne nuyoo Serigne Bassirou Mbacké. di nuyu ajoor ajoor yi. yëpp di tax ma leen di nuyu. dañoo bëgg seen ndey ak seen baay. dëgg la te xale yi. lañu góorgóorlu. si way jur yi. ji li ban école nga génn. école Oustaz Ndour. jaaroo université. déedéet journaliste nga daanaka. dëgg la xam nga lu ko def. Hmm. mun na ma nga teg kër ga. di ko jox muy lekk. dëgg la. di ko toppatoo. Hmm. te nit day bëgg boppam. Hmm. déglu boppam. juboo ki mbokkam. ki la bañ fexeel mu bëggul. dëgg la ki la mere fexeel la moom. la ki la yéene musiba yéene ko jàmm. dëgg ki am ta mayu la may ko. dëgg la ki la waxal lu bon waxal ko lu rafet. lii daal laay tëjee émission bi. di leen gërëm di leen sant étoile jamono nag dinaa si jàpp si zahir jàpp si si baati di oo Serigne Abdoul Ahad Mbacké sa mbir la de Serigne Abdoul Ahad Mbacké mhm. Serigne mhm. jàppal si étoile jamono te nag bëgg naa mhm. donte le microphone la wala benn fiir xam naa ko man maa koy wax ne jëndal ñu benn microphone jox leen jox leen jërëjëf wala nga jënd benn fiir jox ñu dëgg la ñaan si étoile jamono jëm sa kanam. macha allah di gërëm nag rajo bi may wax it. muy rajo ko Kotier jaxu bëgg naa it. Mm-hmm. Lamine Jaxate mm-hmm. ngeen collaborer ak moom. dëgg la suñu mag la caaxaan. Mm-hmm. rajo Fimela. moo ko defar moo leen formé. dëgg la alphabétisation. moo ko fi andi. dëgg la def leen ko mag. dëgg la def leen ko nijaay. billaahi du ngeen ko rëcc. maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di sant barke Medine barke Kaaba barke Arafa amiin yàlla bu mu leen ump yàlla ñu toog ba bu ñuy dem Màkka yéen ñii ngeen ànd di di def reportage amiin amiin amiin te nag du ma waxantu <laughs> kalaamul awliyaa u lastu afhamu mhm. li na nii anna ana abuhum amiin amiin sa jonn mu ngi leen di nuyu mhm. ak njobootam dëgg la sa yumpaañ mhm. sa yaay dëgg la yéen ak ñoom ñoo nekkoon si daara ji ba léegi mu ngi fi di rafetal bilaay isa yal na yàlla teg amiin euh, barke ak wërsëg si njobootam amiin gërëm naa ko sant naa jërëjëf gërëm naa ñëpp nag mhm. waaw léegi nag fu ngeen gis nag ko am diine maa ngi ut soxna nag ngeen ñaanal ma ko <laughs> parce dafa sonn na bugg na ñu aw ko bugg naa bu dégg <laughs> na nga loolu moom jege na nga ko teg bu baax a baax a baax jërëjëf jërëjëf ya jërëjëf tam xarit ji nag euh, bu bu jotee rek eh. bu ñu waxtaanee si audio yónnee leen ko eh. mais jàpp leen ne daal suñu dajewaan jox naan leen rendez-vous kër Serigne Abdou Lahad Mbacké suñu paree kër Serigne Bassirou Mbacké man doyen laa hmm. euh, si rajo bi hmm. doyen laa si seen euh, étoile jamono incha allah Abdou Sarr it hmm. jege leen ko dëgg la jege leen Abdou Sarr damay këram lu bëri jegeel Abdou Sarr foofu nag laa yem wax naa la ko ñetti yoon. jegeel Abdou Sakho. dinaa ko jege incha allah asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.